salaamaaleykum amante net Dakar Buzz ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar di leen ñaanal jàmm waaye di sant yàlla bu baax di julli Yonent bi di am mbégte di ni ngeen ñuy toppee ci émission bii di Dakar Buzz social ñu gis lu baax li ngeen ciy def lépp gis nañ saabu nu lancé vidéo dana metti lool waaye yéen di ngeen ko sot soto mën naa ne ba kenn ku nekk jàpp ne kaa bi sama kaala pour malade bi mën cee gis boppam. loolu ma ciy sant yàlla bu baax ci ni ngeen ma ci fekk see waaye di nuyu ñi nga xam ne ñooy diaspora bi di nuyu ñi nga xam ne ñooy diaspora bi di nuyu ñi nga xam ne ñoo nekk fii ci réew mi tam di dund Dakar Buzz Social nga xam ne ñi ngi ciy def seen alal di ci def seen ñaan moo xam ñi nekk ci Sénégal moo xam ñi nekk ci partout dans le monde maa ngi leen di nuyu ñëpp di leen siyaar di gën a jaajëfal nag association bi nga xam ne mooy Dakar Buzz Social nga xam ne. bu ma faat Fatou tegee bi ci loxo Fatou rek mën na ma koo nuyu ñëpp muy Dakar Buzz Social di groupe whatsapp boo xam ne maa ngi gis ni ni con ñu ni indee seen seen seen seen seen contribution ci émission bi muy loo xam ne macha allah gis naa ko may ñaan yàlla dooleel leen group Dakar Buzz Social yëpp ak groupe TM Social yëpp maa ngi koy nuyu di leen siyaar di nuyu gaa yëpp ndax ñoom ñëpp ay soppey Dakar Buzz Social lan di ko bàyyi xel la ci def seen alal muy groupe Dakar Buzz Social ak groupe TM social ma leen di jaajëfalee ñëpp ci gis ñu ngeen topp émission bi tey nag jógaat nan ñëwaat comme ni koy defee rek ñu ngi fii ci Wakaam seet sunu benn sœur boo xam ne dafa amee tànk tànk bi metti na léegi maa ngi waxtaan ak ñoom ñu ne ma tànk bi def na plus de dix ans tànk bi def dix ans nag yaakaar naa ne doy na waar ci xale rawatina jigéen muy dund a xeeti métit boobu waaye di sant yàlla ci ni ngeen di bàyyee xel plateforme Dakar Buzz sociale bi. nga xam ne gis nañ lu baax li ngeen ciy def yéen ñëpp dinañu permettre bu ñuy seeti malaat man ci tibb jox di jaajëfal ñëpp waaye di nuy kenn koo xam ne mënuma ko bañ a nuyu muy Xaadim Amar maa ngi lay nuyu bu baax di la jaajëfal di nuy képp koo xam ne rek yaa ngi bitim réew di wut yàlla yombala la li ngay wut yàlla teggi jafe-jafe yi te jële fi Covid 19 bi ba yàlla gën a ubbi seen i xéwal ndax bu seen i xéwal bare rek Dakar ba dina ko yëg. ñu ngi fii ci Wakaam nag war a waxtaan ak sunu sœur bi nga xam ne moom la doomam amee tànk bi plus de dix ans soxna si maa ngi lay ngi lay fay lu bëri. terminal la. maa Assa Diouf. maa Assa kii sa doom la. waaw samay sama taaw faatu juuf Fatou Diouf waaw. lii ko dal nan la ko dalee. ni de bi mu nekkee xale la demoon fayu ci benn kër xaritam. ñuy sànni dara daal affaire bi daal laal ko. mu mel ni comme genre weñ. Mhm. léegi bi muy ñëwee wax ko papaam daf jour ba fekk ma génn. waaw papaam léegi ne ma comme noonu la bàyyil ma ñu yóbbu ko hôpital ñu dem pikiir ko ndax damaa ragal mu lax tétanos ak yooyu ñu dem pikiir ko tànk bi ah ñu jàpp ne tane na da xam naa jomb lu ñuy wax rek affaire seytaane ñun nag dañ ko jàpp ne lii lii fu tubaab la ñuy faj loolu gis nga góom bi di yokk ñuy faj muy yokk ñu ngi hôpital bi soo ko lañ njëkkoon nekk waaw mu def fa daanaka ay at tànk ba tey mënul tane ñu ne ñii di ñu wax ne lii du tànk hôpital ñii ne tànk hôpital hôpital nag mënuñ ci leer na ñu indil ma Kaolack Kaolack tamit noonu ba tey ñoom tam amuñ ci benn solution ah si laa ne nag sama kii nag sama euh, jabaru mag la ñëwoon di ma man ne ko man daal léegi damaa sonn ci affaire mu mu expliqué comme noonu ah nañu xool matuwaay solution du ñàkk ma ne ko ah, waaw ba tey tamit comme da nga yore ko wéradi doo mun a toog xam nga am sa doomu yor lu mel nii munoo toog ak moom léegi nag si laa ko jël indi ko fii ñu jokkoo yow mooy waral temps bi ñëw fii toog waaw euh, boobu ci ñaat boobu ak ci ñaataat lay toll. kii kay fi mu toll nii su ma réewam nag carrière xale presque moo ko yàqal jàng. daanaka bi muy bàyyi jàng C1 la toll woon sax te loolu yëpp ci daanaka début tànk bi la woon. ba fi mu toll nii tànk bi toll nii 10 ans biñ ko wax sax dañ ko ko am mais mooy sama taaw waaw. ani ngi fa. Mhm. yore xale ya moom tam dafa am rakkam boo xam ne moom tam même kaa la yor. Mhm. moom tam tànk bi góom bi dafa ñëw rek koo moom dara gaañu ko ci dañoo toog da ba gis loolu. Mhm. beneen tànk bi moom tam noonu la defoon néew di toj di futtu moom tam maçon la amul doole mu ñun lu mu am ko si doon def lépp lu mu liggéey ba dafa arrêté moom moo des ak rakk ma ne ko man nag comme man tam damay dem wuti ndimbal ah gàddu ñaar day métti te jamono neexul si la ma ne bàyyi ma rakk ji man tam may jéem waaw moom tamit dañuy yóbbu hôpital bu ñu amee temps bu ñu ko yóbboo moom tam même kaala du du ni ñu ko bëggee daal duñ ko ko amee daal xam naa nattu bu yàlla la daal. nattu la waaw ngay wax ñi la seetaan te bëgg laa jàppale. Ah, leen wax ne képp koo xamante ne gis nga lu toll nii te yàlla def nga am xolu yërmande mën caa def dimbale rek ngir yàlla tax ngir dax papam amatu doole man samay famille yëpp jàpp nañ ci waaye daal yàlla mayagul leen ci solution boo xam ne war naa mën a wér may ñaan dimbal ngir yàlla tax rek ak jëm rasulullaay jërëjëf saydu lu metti la nag ndax boo xoolee tànk xale bi xam ne mu ngi dund ak métit yaa ji jeexal na takk papam jeexal na te mooy taawam te xale bi jigéen la te ku ne xam ne jigéen moo yor société jigéen mooy yaay mooy soxna mooy lépp ma leen ci tàllal loxo rek lu ci waay man ci lu baax nga def ko ci te yàlla rek tax nag te yàlla rek tax kuy jëfal yàlla daal maa ngi la ciy woo lillahi wala suuri nga dimbali ñu fekk sunu ci kaa bi nga xam ne kaa bu sérieux la boo xam ne yàqal na ko mën naa ni train de vie am lu ci bari ndax dana wax 10 ans mais yaa ngi ne ëpp na 10 ans ngay dem ak tànk bu mel nii. ma leen ci tàllal loxo yéen ñëpp yéen ñëpp rek ku may seetaan rek te yàgg def lu baax ci vidéo yi maa la ci woo nga def ci te yàlla rek tax di gën a sant yàlla ci plateforme Dakar ba sociale bi nga xam ne euh, wax naa ko sànq loolu dimbali nañu ba saa bu seeti malaat du bari waaye dinañ ci tibb jox ko ci ndax lu baax boo ci nekkee yaa cee jiitu numéro bi di 78 601 11 11 muy numéro boo xam ne neen képp kuy bàyyi xel émission bi xeebuñu dërëm xeebuñu ñaar dërëm. boo nu ko joxee dinañu permettre loolu ndax dakaar Buzz social tollootul rek ci ñëw tourné yow émission bàyyi la nga dem mu néew mu bari dina am loxo xam dina ko barkeeloo ba tax na dakaar Buzz social dina ko jox quarante mille muy juróom-ñetti junni yoo xam ne ñun ñoo ko ci jiital may ñaan mu barkeel nag ba mel ni yeneen vidéo yi ndax kun ko ma ta jox rek yàlla suturaal nañu ba après di nga ma woo ne ma wax dëgg yàlla ñu ngi may jàppale yàlla na ci kaa bi bokk kon Dakar Buzz social dina ko jox juróom benn junni juróom juróom-ñetti junni muy quarante mille francs ci turu Dakar Buzz social kon jox ko Seydou. Seydou Dakar Buzz social jox na ko quarante mille di juróom-ñetti junni eh, ñu leen ciy xaar nag ndax li war a faj tànk bi ëpp na juróom-ñetti junni. mais danañ ñaan rek mu barkeel comme yeneen di fi jaar tontoon na ko rek ba ñooñu woowaat ma yàlla na ci bii bokk soxna si tey dem nga jeexal tàkk ak say bokk ak sa borom kër Dakar si la jox la juróom-ñetti junni la ko yëg-yëg bi lan la. Ah, di kontaan rek parce sama àdduna samay doom kenn wérul neexu si xol <laughs> jàpp naa ne yàlla moo ma ko teg ndax bu ma jógee Saalum ba ñëw boo fi xam nga ne fu sori laa jógee. Mm-hmm. di dund ak moom papaam sonn ci ñoom trop. <laughs> di sant ñëpp rek di leen sant yéen ñi nga xamante ne def ngeen seen yitte ndax bi la kiy woowee ba tey bët bu set yaa ngi koy woo maa ngi fii maa ngi fële. lool yëpp def nga seet yéen tamit fi mu jógee yal fa yàlla delloo lu ëpp lii yéen jéego yi ngeen doxee ba egsi fi yal leen yàlla may wër ak wér la may ko mbooleem jullit. si barke salaat fatiha di gërëm ñëpp Sénégal yëpp maa ngi la képp ku tëdd yal na la yàlla fëgg sa bopp nga jóg si daraja rasulullah jërëjëf. jërëjëf mbokk yi ak xarit yi. du metti la nag parce que kenn ku ne na ko xool ci boppam rek mais sant yàlla ndax yàlla mooy tege natt moo koy teggi ñu ngi ñaan daal yàlla ci baaxu Sayyiduna Muhammad yàlla na ko yàlla teggi ma leen ci tàllal loxo yéen ñëpp yéen ñëpp rek képp koo xam ne rek daal. jaamu yàlla nga te lu baax tax laa jóg maa ngi la ciy ñaan nga fekk si ma ci xeebu ñu dërëm xeebu ñu ñaar dërëm ku ko mën a jël en charge tam fajal ko tànkam bi tam moo nu gënal ku ko mënul tam li yàlla wërsëgale ci sa wërsëg nga domp ci jox ci yaayam dina ko arrangé lool lool lool lool ñaan naa leen daal ngeen fekk si ci waaw soxna nan nga gisee émission bi Dakar Buzz Social. xanaa di kontaan si ñoom rek di leen ñaanal ca kaw ca parce que lii ñuy def nii loolu moom dara gënu ko neex ci àdduna parce que gis ko sonn nga xettali ko yàlla moo lay xettali dina la yàlla boole ci ñami xettali di leen gërëm rek ñu yàgg fi te wër waaw. jërëjëf am internet Dakar Buzz kon ma laaj Seydou ma laaj malade bi ñaari baat rek xam naa ne Seydou maa ngi toog ak malade bi euh, sono si noo tudd. Fatou Diouf. baax na maa ngi toog ak malaat bi nga xam ne moom la tànk moo amee tànk bi tànk bi di métti soxna si noo tudd. Fatou Diouf. Fatou tànk bi tànk bi nan ngay dund ak tànk bi. tànk bi dafa tànk bi par guddi. tànk boobu day métti di ma sonal. léegi nga bëgg a wax lan ngay wax ñu lay seetaan pour ñu jàppale la. ñu jàppale ma te yàlla tam ma wër dem doy sama soxla. waaw. sa yaay dégg nga lim daj sa tànk bi ak sa papa. waaw dégg naa ko kañ. waaw yaa ngi bàyyi yàlla gënee may wér ba nga mën dox say soxla pour nga gën leen a taxaw. waaw maa ngi bàyyi sama xel kañ. nga gisee émission bi Dakar Buzz Social. jërëjëf amante Dakar Buzz xam naa wax la ko dafa xaw a métti mais daal maa ngi leen ci xaar seen ndimbal yéen yëpp di wax daal ni. maa ngi leen ci ñaan yéen ñëpp ngeen fekk si ci ci micro bi Fadel mi ngeen tàmm di gis la ci cadre bi Seydou la jërë ngeen jëf di jaajëfal ñëpp ñoo xam ne rek ñu ngi bàyyi xel émission bi Dakar Buzz Social jërë ngeen jëf.